commentaire yonent bi di ngën ngi mbindeef di xayru xalqillaa juddoo Màkka dem ba génn gàddaay moo tax alxuraan nee yaa ngi bëgg dara fekk li ngay bëgg baaxul ci yow nga bañ dara fekk li ngay bañ mooy li gën ci yow boo xoolee yonent bi dafa gàddaay ñu ko gëm fo mu juddoo dafa ba dem feneen muy Médine Médine na rafet asia parasolia Médine la nekk ay poto lamp yoo xam ne dañ cee def ventilateur dafa tàng danaan ni ndox mu ji la cay tubaarikàlla ba mu jógee màkk di dem Médine waa Médine dañ ko doon teeru looloo waral tala albadru alayna min saniyatil wadaa'i wajaba shukru alayna mada lillahi daai ayuhal mabuusu fiina jita bil amril mutaai jita sharafta al madina marhaban yaa xayra daai gàmmu sëñ Moustapha si buy dugg si billahi allazi laa ilaha illa huwa tala al baddu lañ koy woyal mu ñëw balaa moo wax dara dana ne yaa rasulallah bëgg Seydina Muhammad gi gi mu bëgg rek moo tax ma bëgg ko chef religieux yi bari nañ ci Sénégal mais li tax ma bëgg sëñ Moustapha Sy balaa ngaa wax balaa buñ buñ ko woyalee tala al badru naa mu dëggee ko ci baas bi ci tànt bi toog balaa moo wax dara danaan yaa rasulallah sama yaram mi day daw nga kontaan doog a wax assalaamu asalaamualeykum foo xool bu jógoon dem sax man damay daal di doyal day neex ku waroon a mën a yëngu war a wane boppam mais déedéet bu ko neexoon bis bu nekk jasineer mu sol ci ñetti yoon par bis am mbaxanaam ak léppam mais macha allah dafa simple am xam-xam nag ba baarakallah wallahi lazim kon maanaam dal dafa baax teey dafa baax dafa am solo xam nga àddina boo nekkee muzabzabina bayna zalika la ila haulaai wala ila haulaai masha allah dugum dara mooy ñi nga xam ne bu ñee nii nii nii nii du xam fi nekk bu la nee yàlla nga ne déedéet buñ la nee yonent bi nga ne déedéet kenn du xam yow yaay kan waaye li may wax moom sunu boroom def na macha allah euh, alhamdulilahi rabil alamin xam naa ne li may wax dëgg la xam naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la juddoo fa la yaroo macha allah waaye dañ ko fa sonal kaaba gi ñuy laal tey boo jàngee histoire Seydina Mohamed yéefar dañ daan jël dem duus di ko ci kaaba pour bañ rek kaaba gi jóg bilaal ba muy nodd gis ngeen nañ ko def Sëriñ Tuubaa gis ngeen niñ ko def kon man mu xeebu mi maanaam bu ñu taxawee di wax non du ma def dara parce que damay xam ne man kenn sànneegu ma xeer te ku ma sànne xeer ma fay bu sonn ku ma xaañ ma la jotee dinaa la xaañ bu sonn ndegam nag yonent bi moo jaar foofu asimaak nit ñu xeebu ñii doon ay taalibe sëriñ Serigne Touba te Serigne Touba kenn xamee ko lul benn mbubb rek benn mbubb gis ngeen man saa yu may def live bu ma solee bii tey bu subaa du ma sol beneen beneen laay so mais sëñ Tuubaa benn mbubb rek la am da ko bañ soxlawul daray àddina ba amul poos bugg la jël xaalis du ko du dul téere alquran yi mu tiim naan yaa kitaaban karimi anta habibi ila axirihi rek la xam waaw gis nga ko ah ñaa gis nga ko de mais xam nga boo fonkul sa waajur am na wallahi am na ñoo xam ne bu leen seen yaay waxee danaan déedéet waay yow mënoo fexe ba fonk waajuru jàmbur waaye bu la sa yaay yare ngay dem di jàng di ñëw amoo temps doo saaga kenn mais man amu problème boobu mënuma am lu Seydina Mohamed amul mënuma am lu Serigne Touba amul xaadim rasul jéem ma ko sax ndax kay saaga loolu rek la man toog bind rek wax lu bon la man gise combat Balla Gaye ak Tapha dama doon defal Balla Gaye téeméeri bool dem daral jënd fa ñaari xar benn bu ne deux cent cinquante mille wallahi alazim dem jënd fa ci sama xaalis benn bu nekk deux cent cinquante mille jaar caaro yi sama bool yi ma amoon musul téeméer may jënd ay bool benn xale bu góor taxaw fee ne tafaatin daa di jaar fu bon maa ngi samay gàddu koor quatre personnes mais ñoom mënuñu màttee damaa dem ba ci moom ko ma ne ko Balla day daan tafaat macha allah ah képp ku bëgg nokkos rek maa ngi topp waxtaan bi woote ci 77 447 80 25 lii buñ la ko defalee mu tàdd ak yëpp c'est à 10 000 francs donc amul ne amul ne dangaa nekk États-Unis dañu yokk prix bi déedéet li ñuy jaaye waa Sénégal loolu la ñuy jaaye France loolu lañuy jaaye waa États-Unis noonu la ñuy jaaye waa itali noonu la di jaay ñi nekk Canada fépp fu am GP boo ñëwee sama cag-cag dina ko dina ko yóbbu ba ca GP ba ci kattanu yàlla waaw incha allahu rabbi képp ku bëgg rek bu altinee soo boo wootee ci kattanu yàlla fii laay toog waaw macha allah nokkas bi day doo jënd dara jar na war naa mën a jar sax vingt mille franc parce que amul dara looy jënd tibb rek sotti noonu lañ le sant jël sa gan yëngal jël sa vinaigrette sotti yëngal doo ne kaay demal ma bitig ba doo dem marché te fu waay romb dina xam ne yaa ngi toog kese boo nayee nag daal di jël diw ga rek def ci ci jël ndawal def noon te doo ko mariner doo ko piquer doo def dara boo ko yàqee ku ko lekk ku ko lekk rek biir bay daw mu fër gonflé doo mën a lekkaale doo mën a lekk sa salade de fruits doo mën a lekk say pomme ki sa say say fruits doo mën a naan sa boisson ndax da fër lakk bi rek am na noo xam ne boo ko defee